laqil lisaani waxlulan minhu lumuqad wajalhu dakiran wa shakiran abad wajal kalaami rashidan wa murshida wa fikrati nawir wa qalbi arshida anta allasi allamta luqmaan al xikam faliyah bil mustafa xayra sham asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki daara ja waa bi ñëpp ñoo ngi leen di nuyu di leen siyaara di beral nu yoog siyaara xikmatul yawmi xaaju benn ba juróom ak bànqaas yi ci aju yëpp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 tey ñu fas yéene andil xikma bu amati solo eh, tukkee ci sunu yaakaar Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul di ñaan mbokki jullit yëpp ak mbokki taalibe yëpp xikma yi ñuy tàmbali nga xam dañ koy def ay xaaji xaaj ku ko mën a tasaare say mbokki taalibe itam nga def ko ku ko def yàlla na suñu borom dolli say xéewal bu baax a baax te dolli noo musal dolli noo dolli noo aar ndax li ko waral mooy eh, mawdu bi nga xam ne ni moom lañu bëgg a def ay xikma day tomb bu am solo muy eh, alhimmatul aliya te mooy yitte ju kawe yitte ju kawe nag dafay cëslaay ci yoonu murid maanaam maanaam mooy taxaw moo moo moo taxawal yoonu murid wala boog ci la sëriñ bi taxawale yoonu murid ci ndigalul yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ci ndigalul suñu borom tabaraka wa taala kon ñoo ngi ñaan ku ci jot ku nekk rek incha allahu nga tasaare ko xam naa dañu ko def ay dogi dog bu ñu tàmbalee tey boo ëllëgee ñu indiwaat beneen ba keroog sunu def ci suñu kemt laay kàttan ndax géej la te géej mënee su ko jaaxal incha allah di sant mbokki jullit yi ak mbokki taalibe yi bu baax ci jàppale gi ñuy jàppale ñun waa xikmatul yawmi te lépp jëm ci jàng ak jàngale ak yare ak dimbalante ci sunu biir gis nañ jàppale gi bu wér a ñi bokk ñi bokk ci jamhiya bi muy association ak ñi ci bokkul nga xam ne nii nit ay defkati lu baax lañ rek ak ñu sàkkukati tiyaabo seen benn dërëm yeeg ñaar ñaari téeméer yeeg li ngeen ñu yónnee fi daara ji agsi moo ko fi indi te ñoo ngi leen di bégal ci nekkat daara ji yàggul waaye ñoo ngi xalaata yokkaat mm, ay barab yu gën a yaatu kon nag loola ak sant la ñoo ngi ci soññaate bi suñu bopp waaye di ci soññaat mbokki jullit yëpp ak mbokki taalibe yëpp di leen xamal na itam eh, ñi bokk ci jamhiya bi tey def seen dara ci liggéey bi ñoo ngi ñaan ñu yónnee ci whatsapp bu numéro Hikma bi seeni seen seeni vocal ku ci dugal dara wala kuy laaj dara nga yónnee whatsapp mooy gën a yomb sax woote bi léeg-léeg te whatsapp bu euh, numéro Hikma bi mooy 77 633 77 56 ku yónnee ci whatsapp bi incha allah mooy gën a gaaw ci ñu tontu soobee suñu borom ñoo ngi leen di jaajëfal euh, Hikma bi ñu andi tey. te war koo tàmbali nga xam ne dañ ko def ay xaaji xaaj mooy alximma al aliya yitte ju kawe yitte ju kawe nag moo sos yoonu murit ndax su borom tabaraka wa taala moo yebal yonante bi sallallahu alayhi wa mu fekk sëriñ bi ci Mbàkke Kajoor wax ko ne ko nag li nga nekk de lu baax la ndax sañ bii dafa donn ak mbaax donn alquran donn diine donn xam-xam donn ak sell wax nañ ne sax jamono boobu daana toppal ab donga alliwaam jum bind te xoolu ko muy beqi mu bind nisif wala robo sëriñ bi topp ko ba mu jeex te du ci gis benn yàq mu ne ko lii de lu baax la lu rëy la waaye am na lu ko gën a kawe buñ ko laajee rek waaw am na ndax na lu gën a kawe li gën a kawe kon lu mu ne mooy nga fexe ba ba euh, xalim ak suñu borom nga buy bind àtte nga dégg kii kii jëmi def loolu kon mooy la bi tekk mooy àgg ci yàlla ci la ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko nag rabbi asaabaka bil himma nga xam ne baatub himma moom la jëfandikoo yaral gaa yi ci yitte wala tarbiyam bi darsi faqat bu leen yaral te ci njàngal njàngum kese kese kese kese kon boole ci yitte yitte ju kawe ca la wooyee ñu nekk ci daara ji ñëpp nag wax leen loolu yi ah daal wax na képp koo xam ne nag njàngum kese képp la fi andi ñuy jàngale bari nañ waaye koo xam ne nag yitte ju kawe jii ma yont bu wax ci nga bëgg ànd ak man ngir ñu àgg ci yàlla faaw dangay jaayante ak man ñu ànd wuti yàlla moo tax ma rabbi bi darsi faqat wa rabbi kulli waahidin minhum bimaa yaliiqu bi yonent bi ne ko ku nekk na ko na nga ko yar ca la yàlla ca moom ba mu waxee loolu daal nag kon nag képp ko àndoon ak man ngir njàngum kese yeewi naa la ko ànd ak man ngir àgg ci yàlla rek da ngay jaayante ala man sahibana li ta'allumi faqat fal yartahil wa man arada ma aradna fal yu wal yasri ma'i su ko defee la ëpp ca donk yi ñu ci bari dañoo dem lu néew des fa jaayante te mbir buy juddu te nar jëm kanam noonu lay juddoo lislaam noonu la juddoo ci ne ko nettali sëñ Modou Lamine Diop dagana ci irwa u nadim noonu la ko andee la ëpp dem la gën a néew rek des fa yitte jooju nag mosu caa jóg moom sëriñ bi ca la daan yaree tamit naka jekk Cheikh Abdoulah mi ngi nettali ne sëriñ Tuubaa ba mu yëree alquran mu ne allahu wa rasuluhu axaqu ay yurduuhu in kaanu muminin nee na ca la tàggu ko sagoom tëlatut dara booleetu ko dara muy alquran dafa wax ne yàlla akub yonentam kon ñoo gën a yaay ci ngeen sàkku seen ngërëm waaye ba mu jógee wuti yàlla nag suñu borom tabaaraka wa taala daal koy joxoñ yonent bi nekk nag waatul bu yoota min abwaabiha ab nekk da ngay jaar ci buntu ba te kee mooy sama buntu muy yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo tax mu ne suñu borom moo ma tegtal yonent bi yonent bi womman ma nag ba ci suñu borom dallani llaahu ala muhammadi wa xaadani muhammadin lis samadi daal jaayante yonent bi nag ci di ko liggéeyal nañ ko yemale foofu bu subaa ñu jàll fas na lu ñu ci andi itam mu am cëslaay ñu indi fa ko Sëriñ Tuubaa bind waaye duñ wax rek ci defe kon ñoo ngi santaat mbokki jullit mbokki taalibe yi di leen soññaate ci jàppale gi ñuy jàppale wax daara Hikmatul Yawmi bi lépp jëm ci jàng ak jàngale ak yare ak dimbalante ci sunu biir ba ci la ci lañ taxawale daara internat yi nekk Thiès te ñoo ngi xalaata yokk incha allah